ñetti élève yu jigen yo xamné sen at mu ngi tollu ci fukki at ak jurum ño ñak sen bakkan talaata bi ñu wessu demb feulé ci collège bi nga xamné mu ngi nekk ci Tasset nekk ci région bu Thiès ñom nak ab tracteur bo xamné mu ngi doon daw ci dawin bo xamné bu jéggi dayo mom mo leen fekk ci boru tali bi daal di ramasser ñu daal di ñàkk seen ci sasi am ci tamit ñaar ño xamné ne dañoo am ay gañu gañu yo xamné jéggi na dayo d'après l'observateur nak ñaan yi nga xamne dañ ci am ay gañu gañu dañu mujjé dag sen tank yi ndax gañu gañu bi ni mu jéggee dayo victime yi nak ñu ngi leen yobbu feulé ci hôpital régional bu Thiès d'après ben témoin bu ko féké bu wuyoo ci turu Moussa Mbotch mom néna ñaari chauffeur yu tracteur yi nak dañ doon def course di daw dawin bu jéggi dayo lolo tax ñu causé bile accident bi tax ñetti élève yu jigen yoyu dal di si ñàkk seen bakken chauffeur bi nak li di gendarmerie dal di na tek loxo accident bi nak mu ngi am ñaari ñaari waxtu ci bëccëg gendarmerie daal di ñëw ñetti waxtu ci bëccëg maanaam une de temps après lii di sapeur pompier nag ñëw ci ñeenti waxtu ci bëccëg chauffeur bi nag biñ ko dégloo dane lii di baaru otoom nag moom moo coincé wu looloo tax mënul woon am réaction boo xam ne dina mën a tax ba accident bi bañ a am waaye témoignage yi waxul loolu mu doon mbir boo xam ne metti na lool te doy waar ñu ngi ñaanal xale yooyu yàlla yéesal yërmande seen kaw